Mm-hmm. Macky Sall gi nii journal bi nee na tey nag lan waxoon te campagne am 2011 la def. Mm-hmm. la patrie avant le parti. ah bi yoon nag Macky Sall nag jiitalu parti. Sall ngaa ne génneel ma tonton fii ma waxoon moom nii. Macky yemu ca. Mm-hmm. dundu gaa ngi nii. ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards. dégg nga loolu. mi ngi nii. ak dimbali tamit waa bitim réew. entreprise yi sonn. Macky Sall nag ci un milliard bi nga xam ne moom la Tahirou Sarr joxe journal bi nee na kontaan na ca. kontaan na ca Omar Faye leeral askan wi ne moo tey kontaan ci. Ah. opérateur téléphonique yi fi ne. di gagné ay centaine de milliards bénéfice. ana wax na wax. ana li ana luñ joxe. Omar Faye wax na dëgg. ana lan ngeen joxe. Mm-hmm. le soleil yéene kaay nañu. Macky Sall nag dalal na xel yi. état d'urgence bi Macky Sall nee na day continuer fanweeri fan. la 4 mai la jëm. couvre-feu ba tey jile quatre-vingt-deux patients wér nañ mhm. deux cent vingt-deux testé nañ leen positif de mu ne xel dal na di six rek yàlla na continuer lu jege dix milliards di dinañ koy dajalee de lu mhm. enquête yéene kaay ñëw ak ci indi indignation continentale baa ngi nii mhm. doomu jàngoro jiñ ne dañ koy indi fii de lii faj doomu jàngoro ji ñu ne dañ ko bëggee a ci ñun ñi ñu ñuul ñi non da Macky Sall nag fi mu nekk nii yëngal na réew mi waaw kay état d'urgence bi day yokk mille milliards yaa ngi nii. Mhm. société civile waa état ak assemblée danañ ca bokk de. kon baax na. les échos ba léegi ni la ñëw ak ñun ci xabi am. cey cey cey traite la wàccu. xabee nekk ne. déglul de maam Sidi jël ko. jël ko. deret la wàccu. dégg nga. xabi am hmm. daanu dee. gën a fës doomu France bi amee woon coronavirus ci Sénégal te ñu mujj woon ko rawale ca France ca réewam mujj naa fàttu démb docteur Abdoulaye Bousso di njiitu béréb yi teew urgence yi di centre des opérations d'urgence sanitaire moo ko xam ne ci grand jury njiitu réew mi ñaax askan wi ñu sàmmonteeg digle yi jëm ci moytu feebar bi di coronavirus suñu bañee nag ñu yegg ci confinement di maanaam tëj nit ñi kenn du génnati président Macky Sall wax ko démb ci nag bi ñuy tàmbalee yóbbu dund bi nu askan wi boobu sax ak ndimbal googu eh, ki fi jiite woon kuréel gi di conseil sécurité alimentaire andul ci anam eh, giñ koy séddale Ali Mouhamed kamara eh, ne dajaleen ci jar ko li gënoon mooy def ko xaalis jaarale ko ci téléphone ci dem jëli ko daa ngeen déggaay kàddoom ci xibaar yi gouverneur Kaolack am titange ci ñi amee feebaru xel nekk ci mbedd yi ca diwaanu Kaolack muy nag sàkku ñu bàyyi leen xel ci xeex bi ñu xeex coronavirus daañu jeexale coronews di xibaar yi ñeel jàngoro ji di covid xibaar yi nettali nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk ñi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax sànni ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ kay door ak benn doomu Sénégal bu ñu faat ci Amérique moom moomu nag euh, di ndaw bu tudd Bara Samb nee nañ nag dañ ko door balu fital mu daal di faatu Horizon Sans Frontières moom moo ko xam ne nee na nag moom ndaw boobu am na nag euh, lépp ñaar fukki at mu dëkkoon ci euh, nekkoon kon ci dëkk bi di Atlanta foofa ci Amérique fan lañ ko fàtte guddik ajuma jàpp samedi. RFM ak RFM kumpa jeex ñu ci xibaar yi wax lu soxal jàngoro ji di coronavirus ak nag doomu France boo xam ne fii ci Sénégal la amee woon feebar bi ñu jële woon ko nag ci hôpital gannaaw ba mu sonnee woon ñu daal di koy yóbbu ah, ca réewam di France ah, ci xibaar nag moom mujj na faatu nag démb ci suba ah, ki ko xam ne nag di docteur Abdoulaye Bousso di njiitu centre des opérations d'urgence sanitaire di béréb bi nga xam te ne mooy yittewoo urgence yi fii ci réew mi moom docteur Abdoulaye Bousso wax lu ni mel Babacar Fall ci seen émission Grand Jury waaw am nañ ci xibaar yu xawatiis parce que dañu yëgal ni dafa faatu foofu ci ci tugal donc euh, loolu la ñuy yëg euh, suñu mbokk tubaab bi foofu. Mhm. moom nuñ koy wàññee ndax bu ngeen di xayma bés bu yàlla sàkk da ngeen naan euh, am na ñaari nit yu faatu Sénégal da ngeen naan ñetti léegi wala moom duñ ko compter fii. non non ñun dañuy garder toujours ñaari yam parce que bu ñuy compter dañuy xool ñiy faatu ci dëkk bi même bu fekkee fii la tàmbali feebar ñu yóbbu ko euh, tugal foofu mu gaañoo tugal ñoom waa tugal ñoo koy boole si seen euh, si seen euh, wàññi foofu. Mm-hmm. waaw évacuer gi moom est lu gën la. évacuer bi li ça dépend rek si naka la feebar bi toll te mun nañ évacuer souvent malade bu nekk li am solo rek mooy condition yi nga xam ne moo war fekkee koo xam ne dañ koy. dañ koy dimbali pour mu nooy il faut que machine buy nooyi ñu mën ko boole mu nekk ci avion bi mu yóbbu ko moom aussi docteur yoo xam ne dañu xarañ ci loolu donc loolu du problème pour ñu évacuer nit tout dépend rek ni ni yaram bi fi yaram bi toll mais mun nañu transporter ay nit ci avion ci roplaan mhm. ba pare mun ko téye jox ko li nga xam ne moom la soxla ci nooy yi ak li nga xam ne mooy téye eh, yaram bi yëpp mu dund. bu nit ñëwee mbaa njabootam ne dafa bëgg ñu évacuer ko te ngeen jàpp ne war su ko def da ngeen di da ngeen di lànk. waaw parce que xam nga booy évacuer il faut nga xool nag mën na nekk parce que am na ñoo xam ne nag dinañ toll foo xam ne mënoo leen évacuer en altitude loolu yëpp mun na jouer ci euh, ci wérgu yaramu nit ki donc bu ñu demee ba gis ni mënul évacuer dinañ joxe recommandation bu baax ne duñ ko def bu fekkee aussi dafa am équipe buy ñëw ñoom aussi dañuy waxtaan ak ñoom te ñoom aussi dañuy xam te donc dinañu mën a conseiller ni malade bi nañu xaar ba état am stable souvent loolu ñuy wax bu fekkee stable moom dañu koy téye ci dëkk bi mu nekk ba ba mu stable ñu doog ko évacuer mu ne woon docteur Abdoulaye Bousso jiite centre des opérations d'urgence sanitaire euh, doon ganuk euh, grand jury naka tey ji émission bi ngeen mën ko déglu euh, ci kanam tuuti bu onze jote jotee laata lool nag bu dix heures jotee ministre de la santé ni ñu koy defee saasune su ne daañu wax nag xayma yu mujj neel tolluwaayu jàngoro ji di coronavirus ci réew mi ni ñu koy defee saa su kon daañu ci ànd ak yéen fekk nag président Macky moom nag di wax askan wi ñu sàmmonteeg digle yi euh, ci moytu jàngoro ji di coronavirus lu ko may nag leneen ndax ko ñu daal di dem ba tëj nit ñi doot ñuy génn euh, moom tamit sàkku na ci ni nga xam te na jaay ñooy euh, gouverneur ak préfet yi ni ñuy joxe nag lii di autorisation yi nit ñi ngir ñu mën a dem ak dikk ñu daal di koy ay seet bu baax baax ki ci warul jot bañ ca jot ñu déglu kàddu yi président Macky Sall ci micro Sall Sow. ñu moytu ndiku li ñuy wax cas communautaire. tant loolu mu ngi fi nag ça veut dire que xeex bi day continuer kon conditions yi dina gën a jafe liggéey gën a jafe lépp gën a kon nag bu ñu mënee muñ te it ngi wax plage yi nañu ko arrêté nañu di bàyyi plage yi di dox on a commune de l'intérieur ak lépp loo xam ne bërëb bu ay dajel su ko defee yàlla mën na def ci kattanam ak suñu farlu ci diir bu yem danañ mën a génn ci feebar bi waaye fii ñu ngi euh, continuer di bàyyee ndeku ñu ngi koy waxee euh, mbir mi day nekk fii di law rek te bu yàggee danañ obligé kon li ñu bëgguloon def ñu def ko mooy arrêter complètement circulation ndax feebar am na fu tax bu ko danañ ko def moom dinañ ko def complètement kon nag balaa ñuy yegg si loolu ñu fagaru bañ fa yegg si ndax bu ñu góorgóorloo rek mën nañu bañ a yegg mu jàngoro bi niñ ko waxee kenn mënu ko gis bët du ko gis te doo ko sentir maanaam doo ko xañ bi donc doo xam fi mu lay gaañee moo tax waruñu di fooye takk masque yi te daal lu ndaje bu mën a ñàkk moom nañ ko aj ba ci kanam am naa mbégte lool ñëw tey fii ci xool tàmbali bi ñu tàmbali ndimbal li nga xam ne tuddoon naa fan yi ñu génn war ko jëmale ci askan bi yëpp nag dañu war a jox ndimbal lu toll si million ci ay jaboot million ci ay jaboot nag nekk na lu takku boo koy xool mooy genn wàllu Sénégal daal si doomu aadama danañu jot ci ndimbal loolu kon euh, président Macky Sall yëkkatee lay kàddu démb ca Port di ndimbal gi ñu yi euh, euh, daañu tàmbali di dem camion yi tey jii ngir nag ci diwaan yi nekk ci biir ni mi fii ak weer nag ñëpp ci war nañoo jot seen wàll bu ñu sukkandikoo ci ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu équité ak développement communautaire di Mansour Faye leeral ak Salson. juróom-ñetti millions doomu Sénégal yi nga xamante jàpp nañu ne ndimbal war war naa mën a àgg si ñoom ñoom ñëpp dinañ ko jot bu yéexee ba yéex diggu weeru mai bu ñu sukkandikoo ci kàddu jëwriñ yi nga xamante ni moom lañ jox ndimbal li ngir mu séddale ko séddale boobu ci ñaari pàcc lay amee bu njëkk bi mooy dañuy yóbbu bagage yi ci région bu nekk gox bu nekk stock ko fa Mansour Faye bu njëkk bi dañuy jëlee ceeb bi fii nga xam ni ci ñu ko jaay les fournisseurs yóbbu ko ci magasin yi mooy les magasins du commissariat à la sécurité alimentaire bi nga xam ni tous les am donc loolu noonu la ñuy def fu mu nekk nii lii nag bëgg nañu def ko ci ci lu mu bëri bëri bëri juróom-ñetti fan. téeméeri junni tonu ceeb ñaar fukki junni tonu suukar ak ñaar fukki junni tonu pat yile ci ginnaaw gi nag looloo xew ba noppi lañ leen di tàmbali ñoom di séddale ku nekk ñëw jël lam ca moom loolu la ñuy wax phase deux nee ñu bu yàggee ba yàgg weer la war a am man Faye gëm nañu en tout cas bu juróom-ñetti fan yi passé bu neexee yàlla daañ ko tàmbali joxe pour que mbir mi nga xam ne ñëpp a ko bokk ñëpp ci bokk yam mbir mu mu jaar yoon teg ci yoon boo xam ni ñëpp kon armée bi gendarmerie police ak maire yi ñoom ñëpp état bi tàllal na leen loxo ngir ñu mën a dugal seen loxo ci cëdd lépp dund gi ci jamono ji nga xamante ni coronavirus moo lëmbee réew mi la bi li jara leeral mooy ñeenti téeméeri junni njaboot yi ñu njëkk identifié maanaam bind leen ci yi ñoom ñooy njëkk jot lim bi ci topp di six cent mille yi maanaam lim bi war a mottali million njaboot yi war a jot ci ndimbal lile ñoom da leen war a tànn ci gox yi Salif Sow euh, ci lu jëm nag ci tànn ki nga xamante ne moom la ñuy na ñu war a am ci ndimbal googu euh, ku fi newoon euh, directeur conseil sécurité alimentaire nee na nag la ñu waroon sukkandiku ngi tànn juróom-benn junni njaboot yooyu juróom-benn téeméer junni njaboot yooyu ci nag gëstu yoo xam te ne ANSD defoon na ko ci atum 2013 wax na tamit ne dajaloo gi sax ngir nit yi jox leen ndimbal boobu mën na indi wallante ci jàngoro ji li gënoon rek moom yónnee leen ko ci téléphone xaalis bi ñu dem jëli ko Ali Mohamed Camara ci jokkoom ak Makumba Bey. damay lu li euh, njiitu réew mi euh, jël décision pour euh, jàppale askan bi. waaye nag li nga xamante ni tey jii mooy méthode bi nga xamante ni moom la bëgg a séddale. moo xaw a jaxase sama xel. un million de ménage pour nga ràññee ko ci lu gaaw a gaaw ci biir réew mi. lu jaxe la bi ma nekkoon ci secrétariat sécurité alimentaire. soixante cinq mille ménage moo nekkoon ménage yu gënoon yaatu. li ñi nga xamante ni moom la ñu ciblé woon. ci biir Sénégal 43 départements yi un mois la ñu jëloon pour mën a teqali ñi nga xamante ni ñoo ci am droit ak ñi ci amul droit tey jii booy def un million de ménages nga am sa registre national unique bi nga xamante ni deux cent cinquante mille ménages ba quatre cent mille ménages moo ci nekk donc soo dindee loolu ci un million de ménages day def six cent mille ménages six cent mille ménages yooyu ñun un mois la ñu doon def soixante cinq soo naree séddale ci quatre cent mille ménages maximum mu def ndax loolu di indi problème bu fekkente ni ménage yi dañ leen di ràññee mënoon nu jël recensement bu dem décembre deux mille treize bu ANSD mooy recensement national boobu di nga mën a ràññee ménage yi gënoon dool ci Sénégal un million de ménages yooyu mën nga leen ràññee ci biir statistique yooyu rapidement boo ci boolee ANSD nga génnee ko bu fekkente ne dañu ragal transmission communautaire yi war na ñoo mën a bañ a dajale nit ñi ci biti très bien nga xamante ne foofu la ñuy séddale. mën nañu def ay transfer monétaire. yaakaar naa ni mënoon nañu xelal président ci loolu. bañ a dem jënd gi ay dund di ko séddale. parce que ku nekk mën ngaa jënd la nga xamante ni moom nga soxla ci sa biir kër bu fekkente ni xaalis bi àggati ci yow. ne woon euh, leeral yu Ali Mohamed euh, Camara jiite woon fii ay jamono euh, conseil sécurité alimentaire ci wàllu dund boobu bokk na nag ci ñi ci war a jot sa dëkk bi di Touba nga xam ne nag démb am na fa benn cas communautaire de nit koo xam te ne xamuñu fu mu jëlee jàngoro ji kan ma ko ko wàll tax nag ba njaboot waajo di commerçant ca marché Ocass dañ leen ber ñoom ñoo jamono ji xalifa général des mourides moom tamit démb daal dina yëkkati kaddu di ñaax ñëpp ñu dellu ci yàlla waaye tamit ñu gën a dimbalante ñu déglu ki yor euh, ki wax ci turam yor doom Serigne Bass Abdou Khadre ci micro Marème Diop. lii fi suñu borom wàcce wàcc ko fi ne ñëpp xam ne yàllaat moo ko fa wàcce ñi nekk bitim réew itam nag Serigne bi nee na dañ xam ne sori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 mu ne woon Serigne Bass Abdoul Khadre yor kaddu xalif général kul Mouride ah, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Louga nag ba fii am na toll ci fukki nit ak juróom-ñett ñoo xam te ne am nañ jàngoro ji di coronavirus ngir nag bañ wàllante bi ah, kilifa yi yal nañu matuwaay bokk ci ah, tëj marché yenn marché yi foofule ca dëkk ba leeral yeeg préfet bu Louga Mamadou Xuma ci micro Abraham Paul Puy. ci wàllu njaay mi ak jënd mi dinañu tere bépp jaaykat buy jaay Louga ñooñu nekk di def loolu dinañ leen toxal ñoom ñëpp jëme leen stade Watèl pour marché police altine fukki fan ak ñett si weer wi ñu nekk dinañ ko def marché central moom talaata dinañ déplacé ñooñu fa nekk ñëpp di occuper irrégulièrement espace bi bërëb boobu di jaayukaay bu ñu tuddee réseau bi dañ fay jaay ay téléphone réseau boobu aussi tëj nañ ko si lu amul ab ci wàllu demee ko dikk bi bépp bërëb bi nga xam ne woto yi ak clando yi taxi yi ak jakarta yi ak yeneen xeet daan fa daje di jël client dinañ ko dakkal bés ni ki tey lu jëm si véhicule à deux bi ñooñu benn nit donc lu mën a nangu mu nekk si moto beneen bi moo di lu jëm si wàllu charrette yeeg su dee calèche muy wëtiir wëtiir ñaari nit a si mën a nekk muy cocher bi ak ku muy yóbbu su dee charrette mbaam charrette mbaam ñetti nit ñoo si mën a nekk ne ñetti nit ñooñu dawalkat bi si lay bokk su dee charrette fas ñeenti nit lay mën a jël ñett lay yab ak dawalkat bi muy ñeent képp ki nga xam ne chauffeur jakarta wala moto ak cocher bi dinañ leen ñaax nu porter masque ak gant suñu ko defulee takk der yi mën nañu dal seen kaw toogaay yi si mbedd mi mbooloo yi si mbedd mi nu yemale ko